te ne euh, ñu bëri yàgg nañ di ko di ko ko di ko ko ŋaññee boo fàttali ko avant ñu dem élection présidentielle Souleymane Jules Diop dafa génnoon mu ne Amadou Ba il le trouve amorphe parce que nee na solul woon mbubu bi nga xamante ne moom lañ doon xaar responsabilité bi nga xamante ne moom la ñu teg ci kaw ndoddam moom gàdduwu ko woon en tant que en tant que loolu moo nekkoon mm-hmm. position bu Souleymane Jules Diop mm-hmm. et moo nekkoon position ñu bëri même ñu bokkoon ci biir parti bi mm-hmm. ñu ngi ko doon wax ci suuf xëy na ñemewuñ ko wax ci kaw mais Souleymane Jules Diop a eu le courage de le dire et après bi mu ko waxee on a vu li nga xam moom mooy changement bi bi xew ci diggante bi donc aujourd'hui quand j'ai vu Amadou Ba hier quand j'ai entendu Amadou Ba hier euh, très sincèrement je le dis je le répète et ça c'est quelque chose boo xamante ne man sama gis-gisu bopp la keneen mën na ci am gis-gis mhm. j'ai vu Amadou Ba qui a été en quelque sorte vraiment euh, qui a qui a soulevé vraiment les, les propos qu'il fallait le, euh, le, le, le discours a été en quelque sorte convaincant Maintenant, est-ce que les discours convaincants bi nga xamante moom la indi démb est-ce que le discours ou les mots qu'il choisi hier dina convaincre en tant que tel wala dina tax ba ñenn ñi nga xamante ne ni mu ngi koy wax démb ñi ñi ñi nga xamante ne euh, ils sont ils sont mooy moom mooy xëy na gis-gisam dinañu reversé wu ci li nga xam mooy euh, maanaam gis responsabilité bu yees bi nga xamante ne mu ngi koy wot loolu benn mbir la appréciation la question la boo xamante ñu ngi koy posé quand on vient maintenant ci discours Amadou Ba mm-hmm. yaa ngi koy wax il a en quelque sorte fait un résumé. Mmh. D'abord ce qu'il a fait c'est que c'est de s'incliner devant la mémoire des personnes yi nga xamante ne ñoom ñoo dee ci accident et ça c'est quelque mm-hmm. chose de très important parce que hier ça serait ça péché Amadou Ba ñëw ba ñibbi te waxul ci actualité bi nga xamante moom mooy euh, nekk li nga xam mooy métti Sénégal mm-hmm. et aujourd'hui il l'a dit c'est quelque chose boo xamante ne aussi bien que moom que keneen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci langue politique bi benn mbir la beneen mbir bi mooy mm-hmm. hier dans le discours de Amadou Ba politiquement Amadou Ba a fédéré Amadou Ba a appelé tout le monde ngir ñu ñëw wuyu ji ci li nga xam ne moom mooy appel bi muy woote parce que ce lancement de cette nouvelle responsabilité du parti politique bi nga xamante ne mu ngi koy def won na carrément que ne ce n'est pas moi mais c'est nous et ce mot nous c'est un mot qui compte dans la politique ce mot nous c'est un mot pour man boo xamante ne gis naa ne bu ñu ko waxee xëy na ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaawam dinañu gën a am seen maanaam la palette pour pouvoir mën a ibi li nga xam moom mooy parti politique bi maintenant nag on verra li nga xamante ne moom mooy je le dis je le répète démb wax naa ko mhm. est-ce que li muy wax dina tax ba askanu Sénégal déglu ko ba ñëw ci moom ci li nga xamante moom mooy responsabilité bu muy woote loolu question la est-ce que son discours dina convaincre les gens aujourd'hui ba ñu mën a désorienté wu ci li nga xamante moom mooy peut-être le discours des autres opposants muy Amadou Ba muy euh, des des gens qui sont au pouvoir muy Ousmane Sonko muy Bassirou Diomaye Faye mais des autres opposants loolu ay question la yoo xamante ne mu ngi koy posé mm, mais li may wax mm-hmm. et je le dis te gis nga loolu soxna Thiala mm-hmm. dinañ ci xam dara Amadou Ba reste un candidat et reste un opposant très dangereux mm-hmm. pour le régime actuel ci li nga xamante moom mooy démarche am ci li nga xamante ne moom mooy aujourd'hui sa manière de voir sa manière de faire la politique en tout cas li mu ci rajo bu fekkente ne changement ci diggante bi mhm. mais il faut vraiment prendre en compte cet euh, cet homme il faut vraiment prendre en compte Euh, ce politique. Parce que je pense qu'aujourd'hui, au-delà même de sa casquette en tant que leader, je dirais même chef de l'opposition, parce qu'il a été deuxième à présidentielle, mais il reste un opposant très coriace, un opposant boo xamante aujourd'hui il peut faire très mal ci ñi nga régime bi. Mhm. il ne faut vraiment pas le sous-estimer présidentielle. D'accord, très bien balaa présidentielle yooyu euh, Senghor ñu ngi également législative.